Euh, ñu ngi fii itam euh, ci Yaraax euh, ñu ngi fii ci kër Yirim moom it dafa demoon ci mbëkk mi te itam dañoo gis ne moom bokkoon na ci ñoo xamante ne daanaka bato dafa daal di woon mbëkk seen gaal gi donc bokk na ci donc tung na teew ñuy nataal comme ni ma ko tàmmee di waxe dama koy bàyyi ak kàddu gi moom it muy nuyu cher cher téléspectateur yu ñuy seetaan ci Leral TV. ah yëfi ah, affaire bi métti na si affaire moom mooy loolu. ma euh, ci kan nga ko déggee exactement euh, ak kan moo la jox xaalis wala yow yaa ko dajal sa bopp. non maa euh, bi ñaata la woon. man paasu ma woon. léegi yow kan moo la ci dugal da da da xam boroom gaal gi wala. non borom gaal gi xaw xaw ma woon nii sax <laughs> affaire am la woon nii rek yaa mën a xam. Mm-hmm. Euh, euh, léegi euh, yéen ban heure ngeen fi quitté. ñuy quitté minuit minuit lañ quitté Soumbédioune minuit waaw. léegi yéen yan jafe-jafe ngeen oh, ba balaa loolu sax ñaata ngeen woon ci ci géej gi. ñun à peu près daal man xaw ma ñaata la mais lu ma à peu près xam naa quatre vingt quatre vingt yi daal bu tegul daan manqué woon. waaw ah, léegi yow la yan yan ñoo nekkoon jafe-jafe seen ci ci biir gaal gi. gaal gi. നൽകി ah, daw neen daw neen daw neen daw neen ay deux de temps yoon avant marine bi ni ñëw daw neen deux heures de temps avant moom dafa ñëw marine espagnol bi moo njëkk gis gaal gi après si la signalé marine Sénégal bi si la marine Sénégal bi ñëwee eh. di ñu arrêté nag ñu bañ wër ñu wër ñu wër ñu nañu ñett yoon quatrième bi nag si la ñëw dal si kaw gaal gi gaal gi suux. léegi eh, ndax dafa am ñu faatu ci gaal gi. Ah, ñu faatu kay duñ jeex. waaw parce que genn wàll bi yëpp a dee kay. léegi yow tiita woon bi nga gisee loolu. non man action bi ma ko gisee tiit naa tiituma daal. mais doy na lan moo la gën a euh, loo ci ci euh, ci ci ci ci deux heures temps yi ngeen daw lan lan nga doon xalaat wala yow dem rek nga doon. non man moom dem rek laa doon gis quoi instant boobu noonu. bu dem rek laa doon gis marine bi moom bëgg na gaal gi une heure temps avant moo avant moo for ñu ngi taxaw di seetaan gars yi Uh-huh. léegi kon maanaam moom moo ko tey. ah si moo ko tey kay moo ko waaw. loolu mu def kay moo ko tey. Mm-hmm. Euh, xam nga mooy euh, fu mu ne nii léegi yéen après marine Sénégal balaa moo ñëw ñaata moor ñoo ci am ci. non ñu xaw ñu ñaata man ñu sauvé rek laa xam xaw ma ñaata xaw ma exactement ñaataa nekkoon ci gaal yi waaw ñu sauvé rek laa xam. yow da mu ndox moo tax nga sauvé wala lan la. si nekk question affaire moom am na ñu mën ndox ñu si dee sax. Uh-huh. ñu jeex man presque na ma toogaloon ñëpp boo xoolee ñëpp dañoo dee ah. ma toogaloon ñëpp dañoo dee. léegi loolu lan la def. non ah metti na affaire yi moom metti na waaw ah, na lool. léegi bi ngay dem kan nga tàggu exactement ci say waajur. non ñoom yéeguñu ko. yéeguñu ko. bu ma demee pare da nga koy soog si gaal gi waaw. Ah. léegi ndax euh, yow bi nga ñëwaatee fu mu ne wala ñoom bi ñu ko déggee ñoom euh, pour yow lan la leen def. ah affaire yi mooy loolu metti na affaire moom métti na moom léegi fii euh, yow da nga fee amul liggéey bu mat bu maanaam boo xamante ne mën na laa togloo fii walla yow daal da ngaa jàpp ne fii daa fii fii daa métti. Ah, fii kay mooy loolu amul dara. non wër nga liggéey. si ñu ngi liggéey ñu liggéey kay. bi nga ñëwee ba tey daam fi nga jàppal la. ah waa ñu takkalaatu rek ndax eh, yéen seen gaal gi fu mu ne nii est-ce que état bi jóg na ci yéen maanaam maanaam ñu mbëkkee seen gaal gi fu mu ne nii ndax état bi wax na. waaw ñu ngi koy instant bi waxatuñ si ñun dara man si police bi foofu noonu ba léegi nii déggatuma dara. ñan loolu indiwaat marine Sénégal moo la indiwaat. man marine Sénégal moom for waaw man moom ñoom ñoo ma teeral port waaw. après après ñu laaj la lan kan kan mooy sa waajur nga jox leen numéro. waaw waaw yooyu yëpp jël leen sama numéro adresse lépp. mais yow fu mu ne nii est-ce que boo amaatee yeneen gaal di dem wala. Ah, instant bi su ma gisaatee gaal kay yegg si. Ah, da yow daal pare nga pour demaat. waaw. Ah, ndax yow daal da yaakaar ne fu mu lee accident la woon rek ndax li woon ndax lee du leçon ci yow wala amul leneen loo xamante ne tey dalay firndeel leneen. non ma jàpp ne dogalu yàlla rek. Uh-huh. lu waroon am la rek. yaa ngi ma daanaka yéen mujjoo leen sori parce que tey génnoo leen daanaka Sénégal sax tey ñu bëkk leen. si waaw génn Sénégal léegi euh, fu mu ne nii ban message nga bëgg lancer jeunes yi ñi nga xamante ne daanaka ñu ngi fi ak ñu jël gaal gi. ah affaire yi moom instant bi moom dana waar. Mhm. instant bi moom moom temps bi commencé na yëngu mooy lool noonu. yow yow fu mu ne nii xale bi nga doon wala tey da ngaa foog ne avenir yow sa avenir extérieur la nekk wala fii. yàlla moom mu ngi fépp mais c'est que ñun ñoo am choisir di dem foofu rek. te maanaam yow li nga dem ak li nga gis maanaam ci géej géej ragar lagalu bi fi ne ak dee yëpp yow daal fu ne nii gaal même bu fekkee aman nga euh, pour possibilité pour dell di nga delluwaat. naa delluwaat kay eh, ndax moom mooy loolu noonu. Mhm. ngay liggéey ba sonn mais doo gis dara li ngay liggéey. Eh. gis sa papa sa ci lan la dem. loolu noonu affaire def na lan kaa mais dara sant yàlla rek affaire mais euh, pare nga woon pour dee wala pour. non affaire yi moom boo xasee ba dem moom ba yegg si gaal yi nii moom doo gisati sa ginnaaw dara yow du dem rek ngay gis. ndax yaakaaroo ni tey ji say waajur tey dañoo sonnoon lool walla tey dina leen neex tey ñu dégg seen seen doom gaañu ci géej gi wala leneen tey bu fekkoon bokkoon nga tey ci ñoo xamante ne tey dañoo faatu ndax xalaatoon nga tey say waajur naka la ñuy dundee. non waaw affaire yi moom dina leen jàpp quoi na leen def kaa waaw na leen méttitu lool waaw. Euh, yow yaay waay juru euh, Yérim léegi yow bi nga yëgee ne Yérim dem na la la la def. Hmm, xanaa jaaxle rek bi ngeen dem daal jaaxle laa def. neexoon na la wala daam lum la def. ah daal si nelaw laa tëdd dañ ma yeewee ñu ne ñoom Yérim dañu suux navire navire bi ma leen këpp. yow est-ce que yëgoon nga ne moom day dem wala. non non ko woon. loolu yow ñu la woowee sa sa xel ci lan la njëkk a def. bi ñu ne nawet bi moo leen bëgg pour man dee na loolu la njëkk suma xel njëkk xalaat waaw. léegi après ñu indi leen fii ñan la indi fi marine Sénégal moo indi wala police moo leen indi. non marine bi moo leen teeral il paraît que marine bee leen teeral port ñu dem ñu dem daaf quoi te yóbbu leen daaf bu ñu fi amee deux jours lañ soog a bàyyi waaw. loolu ñoom waxul lay la ñuy wax mais ku ñuy dàq du mbëkkaate ñoom ñoo am intention mbëkk leen mais booy doon doon dow pour teer ñoom jël intention mbëkk gaal gi gaal gi suux ñoo ko tey waaw ah, kii ki soo soo ñoom ñoo ko tey dañu am intention boobu. léegi yow ban version la la police jox. non man nag jotuma dégganteeg euh, police daal waaw. Euh, mais léegi euh, magam bi ko jëli woon tey fu ne nii moom ndax bi mu ñëwee rendre na le compte par rapport à la situation bi. waaw magam bi mu ko jëli daal bi mu ñëwee daal. bon li mu wax daal mooy yéen am na ay inspecteurs yi fa nekkoon de police doon leen nii dañ leen lii war nañ ko bàyyi mu sedd ndax lii tegul si yoon am na inspecteur de police yi nekkoon foofu dañ ne magam benn copain collègue la daf ko ne lii tegul si yoon wala ngeen ko toppaatu waaw ndax lii kirim la ndax gaal goo xam ne wóor nañu si nekk ñu mënu fee ñu ëpp nga mbëkk leen war leen leen bàyyi lii sedd ndax ñoom ñoo ko tey. kon ban message tey ngay gën lancé waa gouvernement bi ñu jóg li may message bi may lancé mooy doomu mool yëpp dem nañu te gaal yi am na ñoo xam dañuy yor seen làmmiñ di wax te wax lu nga sax xamuñ si dara bare na gaal yi ñuy dem ñoo xam sax du ñu paas. yërim comme yërim sax yërim du ñu paas c'est ça le na ñoo xamante ni dañuy wax paas bi paas bi nangam mais bari na ñoo xam ñu ngi dugg si gaal yi ay doomu mool la te duñu paas ñu lu paas ñu ëpp a paas si gaal yi. suñ tefes yi diggante Ndar ak Joal ba Kayaar ba Joal doomu mool def suuf ñoom ñëpp dem nañu te géej gu ñàkk jël moo tax ñu dem waaw bari nañu xam seen doom dañuy dem duñ ko yëg ndax booy ils sont intelligents day jëm a xam ne fii bu ñu fi toogee li ñu bëgg seen avenir duñ ko am ndax géej gi amatul jën ba tey day ñëw di mbaal yaboy bi ba tey day ñëw di mbaal jay léegi kon da ngay encouragé tey euh, xale yi di dem. non li may encouragé mooy état bi licence de pêche jox bato yi yaboy warul nekk loolu moom warul nekk waaw loolu moom si lu gën danger catastrophe loolu catastrophe la te bato yi dañu mbaal jëy di mbaal yaboy yaboy mu ñun baadoo yi moom la ñu lekk lekkatuñ coof di gën garaaw si géej gi nag mooy loolu te kenn waxu ko mooy jay bi ñuy mbaal ak yaboy bi c'est très grave. waruñu jox benn bado si àdduna muy mbaal jay muy mbaal yaboy wala mu nekk. Euh, moom nee na ci boppam bu fekkee amaan na possibilité demaat ci gaal gi day delluwaat ndax yow papam di nga ko bàyyi mu. waaw xalaatuma mu delluwaat waaw. ndax euh, euh, xaw ma ñàkk yëg bu ma ko yëgee du delluwaat xam nga xale moom bu ñuy def bu ñuy dem moom seen pexe bopp la ñuy def waaw. ndax ki ko yóbbu gi xam nga ko wala. non ki ko yóbbu nag xaw ma ko xaw ma leen. waaw. ndax moom àndoon ak ak ñi ngay ñi maanaam ñi ñi nga xam ci koñ bi wala ay. ex ak non moom rek laa fi xamoon ku ku dem daal waaw. léegi bi mu ñëwaatee bi nga ko gisee lan nga yëg sa yaram. ah xanaa sant yàlla rek ndax am na ay moroom yu si yu si des kon ba gisaate bu mu ñëw suñu loxo moom sant yàlla la ñuy def Euh, tey kon est-ce que jotul tey euh, ñu jug ci euh, Yérim parce que fu mu ne nii moom xale la te yaa te tàng na fu mu ne nii est-ce que kon jotul tey ñu wutal ko liggéey foo xamul foofu. lu ma xam manqué koy wax lu ma xam xam daal yaayam lu ma xam it koy wax pour mu dem waaw. léegi lan ngay conseiller ay doo maanaam say doom ñu mel ni Yérim et cetera ñoo xamante ni dem rek a nekk seen boobu lan nga leen di conseiller. conseil li ñu leen di conseiller mooy ñu toog waaw. loolu kese la lay conseillé